ci cantaakoon yëpp nag te di leen nuyu di nuyu waa Madinatu Salaam ah, waaw sunu bokki taalibe yu baax yooyu waaw ah, jëwriñ Papa Ndiaye ndeysaan dem ba tey mi ngi dugg ak a génn ah, waaw moom day maa ngi koy sant bu baax ci Pastef bi di sant mbooleem cantaakoon liggéey bi yombul waaye ndeysaan saa su ne rek bu bu bu yëf yi teewee rek ñu xar ci seen tànk tubéy ah, waaw waaw lépp mat na maa ngi seen sunu bokk taalibe tubaa université yi ak seen i bool ñooy yegg si noonu ah, waaw ñu ngi noonu di ma indil ay ndekki ñu ngi ma indil noonu ñaar fukki xar ak juróom ci ay monsieur mooy li may wax rek. faaw nu sant leen mënta ñàkk Fall ak mbooloom yaa ngeen jëf jëwriñ Mass Touré jërëjëf jërëjëf akasa ah waaw ngay sànn ndam mbay ah waaw gor yooyu jëmm yu baax yooyu nga xam ni boobaak léegi ñu ngi ko àndeek nun lu mu metti metti lu mu neex neex nu ànd koog nun waaw moom day maa ngi na ngeen xam ni maa ngi am ak cant ci di leen gis ci sama wet bu bu yëf yi dëgëree rek yéena seen yëg naa bu baax seen taxawaay maa ngi leen ci sant yàlla nañ sëriñ Touba dimbali nag ba ñu eggale ba ñu egg ci sunu yéene ci yéen ndax li nu yéene ci yéen mënu mënagun ko waaye na ngeen xam ni yéene yi buñ ci yàggee rek moom ñëpp danañ ci teg seen bët ay gor lañu te ba ngeen lépp ànd ak ñun kon nag loolu mënta ñàkk ñu xamal ko bokki taalibe yi sunu bokki jarbaati sëriñ bi di ay ay ay doomi ndeyam ku mel ni Dieye Diop Cheikh Fall Baye góor ndeysaan ca fajar la fi ñëw nuyu ma ndeysaan siyaare ma ah waaw jël lépp teg ci suuf dox man ak taalube siyaare ma ay koppar ndeysaan ah waaw yéen ñëpp rek Sambaay Murit ndeysaan ah waaw Mbàkke ma penda ñu ngi leen di sant bu baax waaw ah, sant naa leen gërëm naa leen yaay jee noonee mu daan defal sëñ Béthio defal na ma ko beñeem yu neex ya yenn na ko démb ba andil ma ko boole koog addiya loola it rëy na ci man lool waaw ah, maa ngi lay sant bu baax waaye nag bettuma ci yéen nag yéen diggante kuléeg bam bi yéen ay gor ngeen yéen yéen yéen leen a doxe neneen nu dul noonu leneen moo ñu doon bett waaw ñu ngi leen di sant bu baax sama rakki bopp yi maa ngi leen di sant ci njiitul sëñ xaadim waaw ah, ñoom ñëpp rek bu ma tuddee sëñ xaadim tudd naa ñu ci des barki démb la ñëw sama kër ànd ak mbooloom indil ma fa àddiyee joo xam ni ba léegi moom laa yore ah waaw te loolu bu ko defee def na ko ci turu rakk yëpp Seydina sëñ Xaadim mi daal di Suisse ñëpp rek Xaadim Mboose ñoom ñëpp rek ah maa ngi leen di sant sànq njurul ah waaw biig ñëw na fi ba siyaare ma ak moom yàgg nañ biig lool ci néeg bi. waaw xam naa daa war a biddanti dañoo guddee tëdd waaw maa ngi koy siyaare boom tamit bu baax ah, waaw rakk yépp rek bu ma nee rakk yépp rek ah, waaw cantakoon ak fu mu mën ne ak fu waay mën ne góor jigéen mag ndaw ñépp maa ngi leen di sant maa ngi yëg seen taxawaay ndam li yéena fu ma tourné ñu naan ma sëñ Saal sëñ Saal loolu yéen a bu loolu ak yéen duma ko man na ngeen àndee woon ak moom rek ngeen àndee ak moom maa ngi leen di maa ngi leen di sant am wër na ma ni fii bu ngoonee kenn du fi xaj yëf yi neex na bernde yi bari na waaw maa ngi maa ngi bëgg lool waaw waaw fi ne li ñuy wax naan bu fi yemoon sax mu neex mel na ni wax dëgg yàlla am nañu ndam waaw te loolu loolu sëriñ bi ku jamonoon teg moom xamee nga waaji Mbàkke nim def sëriñ be co mooyem jamono ji nim def sëriñ be co mooyem jamono ji nim def sëriñ be co mooyem jamono ji Mbàkke ni maari jaaloo daw ma jaaloo tey sunu waaji Mbàkke ni lu wanaaloo waxtal andaye tey sunu waaji waaw sëñ bee ci wënde lu joxe ngam li tey sunu waaji Sëriñ Saaliw li mu defu kenn sañu ko miim tey waaji Sëriñ Saaliw li mu defu kenn sañu ko miim tey waaji Mbàkke te xel na murid yi muccal na mbindeef waajib ma ne te xel na murit yi muccal na mbindéef yi tey sunu waajib fii ñëpp la war tey ñuy way sëñ Saaliw tey sunu waajib ma ne ñëpp la war tey ñuy way sëñ Saaliw tey sunu waajib sunu wareef ci yàlla mooy sant sëñ Saaliw tey sunu waajib sunu wareef ci yàlla mooy sant sëñ Saaliw tey sunu waajib waaw sëñ bee ci juun ndamal nga lislaam bi tey sunu waajib waaye gabu gi sëriñ la exeme baa ngee tey sunu waay sëñ Saliou gabu ga firnde la examen ji waaye fo dem ci réew mi yow la ñuy waxtaane jey sunu waaje Saliou fo dem ci réew mi yow la ñuy waxtaane jey sunu waaje waaye fo dem ci réew mi yow la ñuy waxtaane jey sunu waaje ma ne fo dem ci réew mi yow la ñuy waxtaane jey sunu waaje yàlla lay namoo di la sago jey sunu waaje yàlla lay namoo di la sago jey sunu waaje yàlla lay namoo di la sago tey sunu waaji yàlla lay namoo dina sago tey sunu waaji la in sakartum tuur la asidannakum tuur la in sakartum tuur la asidannakum tuur ko sant ñu dolli la yaa ko la in sakartum lazidannakum ko santuñu dolli la yaa ko firndeel ko santuñu dolli la yaa ko firndeel ko santuñu dolli la yaa ko firndeel ko santuñu dolli la yaa ko firndeel ko santuñu dolli la yaa ko firndeel sa ndam lu rëy li nga am alaaw kenn la sa cër bu rëy bi sa ndam lu rëy li nga am alaaw kenn la sa cër bu rëy bi waaw sa ndam lu rëy li nga am alaaw kenn la sa cër bu rëy bi eh, sa ndam lu rëy li nga am alaaw kenn la